asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk groupe wa aiddu lahum mastataatum min quwatin wa min ribaati alxayl aiddu lahum mastataatum min quwatin wa min ribaati alxayl maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp te di leen ziare di leen wax rek fa ila al amaami ila al amaami maa fi tawaqufi min salaam eh, comme ni muy amee rek Euh, léeg-léeg ci jamono nit ki sóobu ci ay engagement yoo xam ni du ko mën a matal waaye sóobu na ca ci ñàkk seetlu wala ñàkk xam wala sax ci ay intérêt yooyu àdduna alwahabiyatu ñoom daanaka wax luñ xamul nga xam ne dañ caa xamul dara ba pare di ci wax ak di tay di fen dafa bokk ci seen melokaan yu njëkk charrul qawli qawlul jaahiliin moo dalati wahabiyun yi ci sababu waxtaan wu amoon ajjuma ji ñu weesu ñoo ngi nii tey ci fukki fan juróom-ñeent ci weeru août deux vingt àjjuma ji jiitu euh, àllarba tey ji dafa am émission bu ñu doon def ca DTV ca Ndakaaru ci ci njiitul Cheikh Ahmed Tidiane bi tey àndoon ko man ñii di wax ak yéen Mouhamadul Ghali Gaye ak sama xarit al abu Aboubacrine Ba ak Tidjani ñu doon waxtaane ñaari mawdu benn ba mooy jàngal alquran nit ku faatu dagan na walla daganu ak tamit déggin wi nga xam ni moom la jullit ñu baax ñi am ci wax suñu boroom subhanahu wa taala wax ni arrahmanu ala al arshi stawa ñu def ci ay leeral yu leer naañ ñi ma waxtaan fa nag bu baax ci wàllu dagan gu mu dagan wàcceel nit ku faatu kaamil mu mu metti trop nag ci xol wahabi yu ni nga xam dañuy bañ ak dëgg te metti bi dana tar ci seen kaw puisque yamuñu ci bañ dëgg gi rek mais dañoo fenoon jiital te mooy dañoo waxoon ne loolu dafa xaraam jaaduwul wax ci ay wax yu ñaawa ñaaw yoo xam ni kenn jiituwu leen ci ci ñaawaay ndemoos bu dee bu dee wàllu wuute gu ci am saa yuñ la indilee masala ni la ñii ak ñii loolu lañ wax te néewuñu ñëpp rek mooy ñañ waxul dañ dañ ca àndu su ma la indilee masala ni la masala mii de imaam Shafii lii la ci wax imaam Ahmad ibnu Hanbal lii la ci wax daal di génn bàyyi yeneen ak ima yi ci def bu ñu waxoon lu mel ne li li ñaar ñi ma tudd wax dama naan ak ñoom ñaar suñu suñu ci noppee damay noppi ci seen tur bu ñu waxee aks bi su ma neexee tudd leen ni ñoom waxuñu loolu su ma neexee bañ leen a tudd continuer sama wax gannaaw lu jaadu rek la lu dagan la ak wuute mën na caa nekk te moom boo ko dégloo daal doo xam lan moo ko pousse pour mu wax lu weesu tàmm ay fen ak tamit fenoon na ay kilifaam fen jox ko mu fen jottali ñu yëg ni fen yi feeñ na il faut nag gaa yi xool ko bëti saa waay yaa fi jàngale woon wala bi ñu doon jàngalee yaa doon wax noonu la tey nag indi nañ fi lu wuuteeg li ngeen waxoon naka pexe muy làmbatu nag ala kulli man danaa dolliwaat tuuti leeral ndax te keroog li ma doon leeral ci rajo ci télé bi dafa leer naan ñi comme ni ma ko waxe nga xamante ni bii moom kay yow nga bëgg ko euh, nga nga nga soxla koo def jël def wala amuloo jot gi nga bañ a def loolu mooy xaqiqa bi ci am waaye kenn mënu koo xaraamal kenn ba ñëpp jeex su ñëwee ci comme ni ma ko waxee woon keroog al imaamu Shawkaani moom dafa jëlee ci téere bu ñu tudde Sharhul Kanz ibaara ba nii la tudde dani inna lil insani an yajcala thawaaba camalihi li gayrihi salaatan kaana aw sawman aw xajjan aw sadaqatan aw qiraata qur'anin aw gayra dalika min jamici anwa anwaaci albirri wa yasilu dalika ila almayiti wa yanfauhu inda ahli sunna demal ci naylul awtaar ca jus u ñeenteel ba page quatre-vingt-dix-neuf da nga ca fekk imam Shawkaani jëlee ci benn téere bu ñuy wax sharxul kanz mu ni nit ki am na sañ-sañ ci li mu jëfal yàlla ci lu baax moo xam jëf ju baax jooju ak julli la wala koor la wala aj la wala sarax bu mu génnee la wala njàngum alquran wala leneen lu bokkut ak loolu ci mboolem xeeti jëf yu baax yi mu yéene ko nag moroomum nitam ni tuyaaba ji maa ngi koy fàggul diw sàngam maa ngi ñaan yàlla bind ko ci carnet bi mu daan bind ay yiwam te nee na loolu ahlu sunna juboo nañ ci ni kooka dana ci jot kon comme que tudd na qiraata quraanin kon minal bidaayati shawkaani loolu la wax te di su ko weddi lu bokk tëj yeneen ñoo xam ni maa ngi ñëw ci ñoom pour ngeen dégg wax bi ba mu gën a leer soo dikkee ci ki ñuy wax ibnu qayimil jawziya da ko dégg moom mu ni la yasilu sawaabu saairi l ibadaati maaliyatan am badaniyatan amil jaamia bayna almaliyati walbadaniyati ila almayiti mboolem xeeti jaamu yàlla yépp yépp buñ ko defalee ab néew bu faatu dana ca jot jaamu yàlla googee nag moo xam alala ko def kese niki ki azaka wala sarax nga xam ne da yëkkati alal joxe nga sarax sax ci moo moo moo ci jiitu wala badan def ko ni ki ay rakkaa yooyu julli mbaa koor gooy woor wala njàng mooy jàng alquran wala sax jëf joo xam ne daa boole alal lañ koy defe aku yaram ni ki ak aj màkka wala ak umra mu ne yooyu yëpp soo ko defalee néew bi da ciy jot ibnul qayyim moo ko wax loolu xataa saydu qutub sax nettali na ko ci fiqhu sunna boo demee fekk ko ci soo ñëwee ci ibnu taymiya moom it loolu la wax ku jàng alquran jublu ci jaamu yàlla may ko aji faatu dana ca jot noonu buñ ko génnee sarax jox ko ñu doon jàng mbaa ñeneen dana ca jot loolu loolu leer na boo ñëwee ci sarxul umda al uddatu fi sarxil umda al udda téere fiq la boo xam ne mu ngi wax ci mazhabu imam ahmad bahaauddin abdurahman ibnu ibrahim moo ko moo ko moo ko defar déglu la ibaara ba nii la tëdd amma qiraatul qur'ani wa ihdaau sawaabihi lil mayiti fal ijmaau waaqiun ala fi'lihi min gayri nakiirin yokk na ci leneen sax waaye dani jàng alquran tuyaa ba ja nga ca amee nga may ko ku faatu ak dëppoo la ci biir boroom xam-xam yëpp yëpp yëpp amul ku ko mas di weddi demal fi al uddatu fi sharh al umda ca juz bu njëkk ba page numéro cent douze masala mam génnee loolu sax mooy quatre cent six ibnu Qudaama ci al Mughni ak ci alsharxul kabir ñaar yëpp ibnu qudama almaqdisi alhambali déglu li mu wax dani inna almuslimina fi kulli asrin wa misrin yajtamicuuna wa yaqra'uuna alqur'ana wa yuhduuna thawaabahu ila mawtaahum min gayri nakir demal ci almughni tome numéro deux page numéro quatre cent vingt sept mbaa nga dem ci alsharxul kabir nee na jullit ñi ci jamono yëpp ci dëkk yëpp dañuy dajaloo di jàng alquran tuyaaba ñu ñu koy may seeni woy faatu te amul ku ko daan weddi kon weddi gi léegi la comme ni ma ko waxe woon waa bi yu yu yu feebar yi rek ñooy ñooy dox di def lii léegi damaa bëgg a indi indi delloosiwaat masala mi ba mu saxaat ni mu saxee ci seen kanam ngeen dégg léegi al imaamu nawawi mooy kan ci al madhabu shafii al imaamu nawawi mooy kan ci almadhabu saafi'i mooy ki ngeen xam imaam nawawi nee na imaam ahmad moo am mbooloo mu bokk ci boroom xam-xam yi ak meneen mbooloo mu bokk ci gaa yi imaam saafi'i yi muy ñett kon ahmad ci boppam ak meneen mbooloo mu bokk ci borom xam-xam yi ak nag meneen mbooloom ñetteel moo xam ne mi ngi bokk ci waa kër imaam saafi'i yi nee nañ ñoom ñëpp wéy nañ juboo ci ni yasilu alqiraatu wala sawaabul qiraati dana yegg ci mayit bi ba tax na sax fal li liñ tànn buñ jàngee alquran ba noppi liñ tànn ñu war koo def mooy ñu ni ki doon jàng ni allahumma awsil sawaaba ma qaratuhu ila fulaan yow yàlla yàlla na nga jotale tuyaabay lii ma doon jàng wala lii ñu doon jàng yàlla na ko jotale diw demal ci al azkaaru nawawiya page numéro cent quarante boo demee ba tey ci al azkaaru nawawi imaam nawawi bind ko te laaj naa leen nag mooy kan maanaam pour ngeen xam mooy kan imaam nawawi foofa dafa wax carrément mu ni imaam shafii moo ki gaayam nee nañ sopp nañ néew bi ñu jàngal ko as lëf ci alquran suñu góorgóorlu woon sax ba wàccee kaamil bi moo gën loolu mu ngi ci al adkaaru nawawiya al imaamu nawawi mi nga xam ne moo chara saxiixu muslim chara bu mag ba moo ko bind mu ni loolu boo demee ci cent trente sept ci al adkaaru nawawiya danga ko ca fekk aywa soo ñëwee ci al imaam al chaaraani moom suufi la moom it loolu la wax su ko defee li ñuy dox di wër ak wax di coow coow lu du jeex léegi soo ñëwee ci imam ahmad ibnu hambal moom dafa santaane mu ni saa yu ngeen duggee ci armeel la ngeen jàng fatihatul kitab ak qul huwallahu ahad ak falaqeeg naasi te ñaan yàlla tuyaaba ji mu joxal leen ko ñañu rob ca armeel ya dana ca jot téere yu bëree bëri boo ca demee fekk ko ci ak tabgërtu bi imam al qurtubi tome numéro un page numéro quatre vingt quatre alfawzu wa najaatu fil hijrati ila allah page numéro cent vingt deux boo demee kekk ci lii ma la wax nga doog a dikk na ci lu ibnu taymiya indiwaat ci ruux te mooy waa lansaar lu ñu daan faral li dem ci armée di jàng alquran ak euh, santaane wasiya ndénkaan lu abdullah ibnu omar dénkaane woon ni bu faatoo nañ ko jàngal alquran léegi sawaay yi muy dox di ko weddi ba mu jaral ko wax yu rëy yi muy wax ak maanaam makru gu rëy gu muy waxe naan sëriñ xaali ak naan dafa jaawal jaxase diggante alqiraatu wa ihdaau sawaabi lil mayit ak alqiraau alqiraatu inda alquburi loolu moom moo ko jaawale xam nga ñoom dañuy woote lu ñuy wax al manhajiyatu wahabiya dañuy wut lu ñu tudde manhaj pour mu nekk benn jumtukaay pour tàqali tàqale jullit ñi bi xay dañ naan diw sàngam bu ñu ko mënee génnee ci ci ci ci jullit ñi dañ naan bokkul ci ahlu sunnati wal jamaa ñu ngi bokk ci asxaabul bidaat buñ buñ buñ buñ buñ la meree dañ naan yow yaa ngi bokk ci asxaabul biddaa biddaa lañ lay askan waaye bu fekkoonte ni ñoo yor karne ba yàlla di bind lu ay tuyaaba ak i bàkkaar kon sax nga mën a xam ni même buñ juumee ñoom yàlla du juum buñ meree yàlla du mer ci lu ko jarut bu ñu waxee lu nekkut yàlla moom moom lu baax rek lay def waaye yàlla yàlla dogal na bañ nekkee ay xar bëgg mbëkke far yàlla dindi seen i béjjën njëkk soxor na waaye far mënut a mbëkk suñ jubóowul ak nit ki takfir lañ fay sësale takfir la buñ la mënta takfir ndax di yéen a bokk mën a xaj yéen a bokk ay intérêt maanaam yu ngeen di wut dañ naan bokkuñu mën a xaj su ko defee mën xaj daal di doon benn jumtukaay bu ñu créé bu bërki démb ci kon pour tàqalee ko jullit nga xam ni léegi nit ki danga nga koy mën a def musrik walla leneen takfir ko daal génnee ko ci diine ji wala mënoo ko waaye danga koo mere nga ni bokku leen mën xaj mais manhaj manhaj mooy lan dañuy woote ñoom manhaj waaye ñoom xamuñu sax luy manhaj te man su ma neexoon ma wax lu ma bëgg a wax ci jàngal jàng alquran ci xabru yi ak jàng alquran jàng yéene tuyaaba ji ko faatu bu ma neexee lu ma neex ba waxee te jaxase gi muy wax xëy na moom moo ko sentir waaye man yëguma ko mais su ma neexoon jaxase ko que mal maa neexoo lan moo koy aaye jàng alquran ci xabru même ibnu taymiya moom nangu na ni julli ci xabru julli ci ay bàmmeel nee na soo gisee ñu koy tere jublu wuñ ci doyadal ñañ fa rob waaye dañuy ragal nit ñàkk xam ba tax buñ fa jullee mu yóbbu ci xolam leneen foo xam ni xol ba waru fa woon a dem kon te fu julli nag da nga fa jàng alquran la salaata illa bi fatihatil kitab kon xaat ñoom seen sëriñ bi ñuy liggéey li ko yelwaanal moom moom àndut ak ñoom sëñ sëriñ bi ñuy liggéeyal di koy la waan ànd moom fépp fu sell ci kaw suufu si yàlla si foo xam ne amul sobe mënees na faa jàng alquran fu am sobe rek lañ koy moytandiku sobe su fii am na fi man nga ko faa mais ay kubur bu fekkente ni dañoo xam ne xalu najaasaat la ana najaasa bi bu fekkente ni dañuy gas ba suuf gi ni jël ki suul suuf suñ ko gase woon moom lañ koy suulewaat ana najaasa aywa foofu dama koy bëgg wan war ni ko moom ñaari yëf am na ci moom mooy mi ngi réparé benn benn benn fen benn chambrayeur boo xamante ni bii bënn na téeméeri bën bën ak juróom fukk moom la bëgg a réparé waaye bu paree du ko pomp mu ngi jéem a dajale ngelaw ci kaaf du sotti te te makru gi mu dugal te mooy naan ay sëriñ xaaleeg yooyu vraiment man bett na ma trop ci ñoom léegi ñàkk gum ñàkk a xam dara ci li muy wax ba pare na di jéem a jiital aw làmmiñam bay dugg ci usul bay ñëw ci alqiyaas naan qiyaas dama alfaariq boo ko laajoon dëgg-dëgg ma nga bàyyi ko mu am mu am jekku mën a dem ci téere yi wala mu mën a gisee gaa yi laaj waaye nga woo ko ci ruq ni ko yow lan mooy al alqiyaas taarifal ma qiyaas fi usulul fiq bittaali waxal ma lan mooy alqiyaasu ma alfaariq waat naa ci yàlla ni xamu ko wala su ko xamee nga xam ne fenkat bu mat sëkk la te nag bu mënee fen du ñuy yéem ndaxte wahabi la moom Moussa Cissé mii Moussa Cissé al wahabi laa koy tudde ndax damaa xam ay jullit yu baax yoo xam ñoom du ñu ay wahabi yu am ci ñu tudd Moussa Cissé moo tax su manee nee Moussa Cissé faaw ma àgg ci al pour tàqale kook jullit ñi ku ko woon ni ko alqiyaas ma alfaariq mooy lan xam nga alfaariqu mooy aksu aljaamiu aljaamiu mooy lu boole ay mbir alfaariqu mooy lu leen tàqale dafa am xew-xew bu xew mooy am néew a ngi nii tëdd ay jullit a ngi nii ci gannaawam di ko tinul seen boroom di ko ñaanal yàlla pour mu dajeeg yërmande pour mu texe biñ koy ñaan ki jiite ñaan gi ñëpp taxaw ci gannaawam dafa jàng lu bokk ci alquran kon néew tëdd na ña nga koy sàkkul njëggal ak ak texe ci boroomam ay jaam di ñaan seen boroom pour mu am njëggal ak texe bañ koy ñaana loola nag ñu jàng fa suuratul fatiha muy lu bokk ci alquran mu nekk ab xew-xew bu sax bu wér boo xam ne yonent bee ko def sallallahu alayhi wa ñu toogati ba mu yàgg ab néew tëdd bi mu tëddee jullee nañ ko sax ba rob ko ba noppi ñu toog ba yàgg xel dem ci moom ñu ne nañ ko sàkkul yërmaande ak njëggal ci boroomam ñu ni nuñ koy sàkkule njëggal ak yërmaande ci boroomam ñu ni xanaa ñu jàng alquran lu ci bokk mbaa lépp def lu niroog la yonent ba defoon ndaxte yonent ba muy sàkkul këlay njëggal ak ak ak mbax ci yàlla pour mu dem àjjana dafa jàngoon alquran ñu nit kii loolu lañ koy wutal mën nañoo jàngaat alquran jooju loolu mooy qiyaas jaami' bi mooy aju faatu la li ñuy jàngit alquran la li ñuy wutit leen la nga xam ne lépp ñoo ko bokk ba tax na foofu tudd fi qiyaas wala tudd fi surtout ma al pour nga wax ko il faut nga nekk jaahil murakkab il faut nga nekk ku ñuy ruux am lu topp sa gannaaw di la puus waxoog sa sago te moom xol bi ñemewul soo ko déggoo làmmiñ wi ñemewul xol bi ñemewul parce que man yàgg naa koo dégg yàgg naa koo dégg bu dee wax wax ju ñàkki gi wax ju pànk la daan wax waaye yoon bii xol bi ñemewul yaram wi sawarul te boo déggee waxu dof yam ca teg ba egg ci naan xanaa ko néew bi li ñuy war a def ci julli gi lépp war nañ ko koo defal ba tudd ci sax am njàpp néew bi liñ ko defal ëpp na njàpp sang nañ ko dañ koo sang néew boobu yonent bi doon jullee noonu njàpp la doon wax moom sang nañ ko sangu farata nagum njàpp solal nañ ko jëmale ko penku moom li mu doon wax foofu boobu boobu vraiment ku doon lap di kala di kalaamitu ci say nopp sax la nga doon yóotu pour jàpp ko moo gën a dëgër moom li mu doon yóotu te bu fekkee def defal ko ku fi nekkul ni ki ku ñu rob bu yàgg najashi malikul xabasha ndax yonent bi julleewu ko sallallahu alayhi wa sallam te najashi ma nga deewee ca xabasha te xabasha mi ngi nekk ci Afrique yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk ci almadinatul munawwar est-ce que julleewu ko foofa xiyabiyan ba mu koy jullee kan moo mën a weddi ni tariw fa fatiha ndax booba nag yonent bi jàppal na najaasi wala mu sangu ko léegi nan nan la ñu sangu kuñ gisul wala kuñ ko wala ñu koy jàppal wax yi daf xam nga léegi euh, këlbu dafa bokk ci aadaam lii ma leen di bëgg a wax xaj xaj su dee bow bu gisee lu jar bow ba mu koy bow day toog ba yàgg mu jékki-jékki bi bow baw yoo xam ni ruut yi nii yan da ka teg noonu rek mu nekk ni xaj baa ngi mbaw mais lam gisoon ba doon mbaw gisatu ko mais mu ngi yëglu ni moo ngi fi ba léegi sa waay jikko jikko jooju dafa dafa yomb ci waxaabi yu daf cee yomb trop te léegi loo loolu moom maanaam man li ma doon saxal aslu bi mooy yonent bi moo ko njëkk njëkk njëkk njëkk a def ku koy def doog koo def moom nangu na ne yonent bi def na ko Seydina Abdullah ibn Abbas defaat na ko donte lee xolam bañ na ba koy tudde asar walaw falyakun aqalla min asar ala kullin saxa an ibni abbasin radiallahu anhu ci ni moom jiite na ab néew tari fatiha ja ca kaw ba mu noppee mu ni saxaaba yi maa jublu biral gi pour ngeen xam ne fatiha ci sunna la ñëpp ni yonent bee ko daan def sallallahu alayhi wa sallam kenn weddiwu ko ba mu des wahabi yu nii man bu lii xasee sax bu ma neexoon ma tëdd di nelaw li may wut jot naa ci sax na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jullee na néew jàng na alquran ñun suñ de te jullee gi lépp lépp weesul ñaanal ko ñun suñ de ñaanal néew te nag est-ce que am na fenn fuñ saxal ni nit ki buñ ko xasee ñaanal bu ko kenn ñaanalaat bu fekkee dafa am ci sariya nit ki suñ ko ñaanal bu ko kenn ñaanalaat nañ ko wax mënuñu ko génne yàlla mi ngi wax ci alquran walladina jaa'u min baadihim yaquluuna rabbana agfir lana wa li ixwanina alladina sabaquna bil iman rabbana axfir lana wali ixwanina alladina sabaquna bil imaani ñaan googu man su ma ko jàngee jàngal naa ko ki ki mujj faatu ci sama jamono ba ka njëkk a faatu ci jullit lu ko dale ko saxaaba yi ba tey ji ndax dañ naan kon ka ñaanal leen leen bu leen kenn ñaanala ah. te su fekkee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jiite na néew boo xam ne da néew bee ngi teew jullee na néew boo xam ne nekku fi ni ki najaas léegi lan lañ bëgg a wax lan lañ bëgg a wax bu fekkee eh, li ñuy def ci julli gi kon war nañ ko defal néew bi lépp xanaa kon ibnu taymiya nee na takbir ibnu taymiya sa sëriñ nee na lii ñuy wax ak takbir ak li ñuy wax tasbix ak li ñuy wax alham eh, tahmid lépp lépp mën nañ koo defal ab néew te da ciy jot nga xam ne foofu dama lay wax ni la li ngay weet di sa baaya ko wax sa baay ibnu taymiya nga dem attaque bi ko boo ko dee attaque am naa lu mu bëgg a jël pour dàq benn xew-xew sukkandi ko waxu albani loolu moom kaadisa la loolu moom lu lu gara lu mat a moytu la loolu moom astaghfirullah nga war a wax albani ku ñuy lijjanti pour mu nekk daif rek albani adaafu min dalik képp kuñ lijjanti puisque albani wadu xadis sax def na ko wadu loo xam ne mawdu la arrahmanu ala al arsh istawa bëgg-bëgg bi ci wahabi am bëgg biñ ko munta am albani dafa cee sosal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wallahi alazim nga xam ne wadu xadis ma xadis mawdu te man kenn du ko may wax nii ku koy da ngay dem ci benn site bu ñuy wax daaru sunna muy këru fen fenukaay bu rëy te sunna ñoom ba ci ñu bokk ci ñoom di ko mujj di taarif baat bi li muy tekki mooy aw yoon wu wu baax wu jëm fu baax wala yoon wu bon jëm fu bon ñoom nag sunna suñ jël mooy yoon wu bon jóge fu bon jëm fu bon te du ko génn albani yi suñ dee wut ku wóora di rek aw turam wala takk der fu mu romb doy na albani yi mën naa laa nettali juróom benn fukki xadis ak ñett yoo xamante ni bii benn bu ci nekk dañu woon xadis boobu saxiix la ba mu neex ko mu ñëw ni daayif la te lan la jublu ci jël juróom benn fukki at ak euh, benn fukki xadis ak ñett mbaadu da cee yéene ati yonent bi lim dund sallallahu alayhi wa sallam pour mu fenal ko lu tol noonu nga xam ne at mu ne mu tegal ko fen loolu doyul boo ñëwee xoolal min saxiixin ila daifin jële ko ci ni moom moo woon wér na tey nee na wérut mu def ci juróom benn fukki xadis ak ñett delluwaat min daifin ila saxiixin xadis yoo xam ne moom moo ni woon wérut moo ni woon wér na boog moo ni woon wér na tey mu jële ko ca ni ni wérul téeméeri ak juróom-ñeent fukk ak ñett ak yeneen yu bare bari nga xam ni toog ci benn jataay lim fa ñetti téeméeri xadis ak lu tofal yoo xam ne benn bu ci ne albani wax na ci ñaari wax yoo xam ne mënuñoo ànd ni penkook soowu sore noonu lañ sore benn xadis bu ci ne wax na ca ñaari wax yu mënta ànd kii nan la ko nit di defee nit ñëpp yëg ni moom bi muy def lii tooxi doone yi bi mu koy def dafa liggéeyul woon ngir yàlla da doon da doon ci xadisu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dafa gisoon benn bunt boo xam ni nit ñu maandu ñëpp fañ ca yow ñam moom moom ñëwee da koo weesu te doomu aadama yi léegi dañoo bëggum seetaan akum dégg tax mu jóg di bind di di wax saxiix laa ak daif la bind ci téere muy jar jar bu gaaw cinq cinq muy jot xaalis bu bari di ci am ay martaba yu kawe wahabi yu ni di ko tàcc waaye tey weddi nañ ko ibnu usaymin soo ko gisee naan albani li ko tax a soof mooy day fekk xadis bu wér mun la wérut wala fekk bu wéradi mun la wér na te loolu waxuma la sax bil qalam waaye bi sawt wa suura ngay gis usaymin nii mu koy wax te wahaab yi benn du ko weddi ku mel nii nan nga koy diree ca medd ma di ko dir diree pour indi ko ci biir jullit ñi naan nee na nee na gisuma ci nàngam moom bu gisul nàngam mooy kan kan mooy albani kat ba noppet leneen danaa leen ko wax mooy gis nga waxaab yi pour mu mën a fen pour mu mën a fen day day il faut moom mooy tabax li mu bëgg pour mu mën a weddi bokk pour mu mën laa weddi il faut moom mooy seet lu mu fi teg pour weddi mooy jekki-jekki ni ñëw ni e julli te jàppoo te amoo benn ngànt loolu dagagu ñu ne waaw ah, loolu de dëgg la mu commencé nag di ko ñaawlu di ko ñaawlu ba pare askan ko ci nit koo xamante ni bi xamalu ko dara daal di koy askan ci menn Mor moo xam ne musta gis Mor Fall xamalu ko dara bu ko defee li feeg mi ngi wax ni jullite jàppoo dafa xaraam yow ngay dégg da ngay jàpp ni li muy wax lu wér la waaye nag wax ji dafa taqul ci kenn dafa mel ne benn brin almet boo kos sa téye ko nii ci air bi muy tàkk tegoo ko fenn day fay léegi wala mu lakk léegi day mu jeex su ko defee ci boo dee déglu wax gi nii surtout ngay waxaab yi comme moom danga naan sa waay tey bayaanam bi benn la mais ba dafa dafa nekkul ciy tool mbay mi da koo bayul ciy tool bayaanam boobu da koy bay ci air bi gopp ci ngelaw nag njëriñ la du bari ndax doo mën a war a pare sax ni fii laa jaaroon loolu moo ko dal ci mawdu bii muy def amma di tàmbali naan li ma wax dafa sori xam-xam dafa sori xam-xam ana ana xam-xam kan moo koy jegele wala moo ko sori lan la léegi boo dégloo tamit li mu wax njàngum alquran ci ay qubuur ak jàng ko yéene néew bi tuyaaba ji amul amul kii maanaam man ak teqale gi mu ci bëgg a teqale nii man haj yële ci bëgg a woote te man haj ñoom amuñu ko puisque seen sëriñ seen sëriñ di di di ibnu taymiya boo ko jëlee pour nga xam ni ibnu taymiya amul manhaj yi xamu ko sax mosu cee jaar boo jëlee xayaatu xadir sayidna xadir alayhi salaam boo jëlee dundam ibnu taymiya nee na la dee na bu yàgg boobu yónnee gu yonent bi dellu ni la mi ngi dund ba suñ jamono ji te te te moom moom digganteem ak yonent bi yonent bi gàddaay na ñëw madina waxuma bi ko yàlla yónnee waaye bi mu gàddaay ñëw Madina bañ teg juróom-benn téeméeri at ak juróom-benn fukki at ak benn Ibnu Taymiya doogu judd ba pare nee ba jamono Xadir mi ngi dund mu bind ko ci Majmuul Fatawa bindaat ni deena booba yónnee gu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ayu manhajiyatin hadihi lii mooy manhajiya boo ñëwee ci taqdisul asxaas daqaar gi day ñëw nii la wahdatul wujud tiijaan yi dañ koy woote mu nekk aqida bu bon bokkaale wax ci lu baree bari ni Cheikh Tidiane Chérif indi na ko Jawahirul Maani daal di dem indi nii fi mu ko indee un trois un deux trois nga jàngoon mais un trois jéggi lu ñu wax deux lu tax mu jéggi deux puisque deux ci la Seydina Cheikh di wax ni wujud bi yàllaa ko sàkk munta doon yàlla kon ndaxte munta booloo doon càkk def en même temps doon aji sàkk kon mbin mbindeefoon yi lépp yëpp ay sàkk teef lañ waaye am na fenn fu ñu bennoo fañ bennoo mooy kenn leen boole sàkk muy yàlla subhanahu wa taala amul ñaari sàkkkat amul ñett benn sàkkkat la kon lépp lu ñaara fi am aji sàkk ci te mooy yàlla ak càkk téefi te mooy mbindaafoon yi mbindaafoon moo yëkkati rek am na lu mu bokk ak moroomi mbindaafoonam yëpp te mooy kenn leen sàkk loolu moom ñoo ko bokk bennoon na saak ñoom mu tudd wax wujud loolu ba mu njëkkee lii moom su ko waxee la mu déclaré woon ne maa ngi koy jëli ko mën a indi mu bàyyi fa loola teg fa waxi boppam loolu mooy mën xëy ñoom ci yooyu la ñuy woote léegi su ko defee li muy wax ne al ixtilaafu laysa bi xujja xamul lu muy tekki ixtilaaf du xujja bi mu askan si ibnu abdul bar xamut lu muy tekki dañuy xam nga li muy la mu waxoon fa fële ci qiyaas ma al faariq moom la bëgg a wax fii te xam sax qiyaas ma al faariq moo gën a yobbu xam al ixtilaafu laysa bi xujja xamu ko xamu ci dara munu ko leeral mais noonu laa ko ko bàyyi le pour wax ko ni ko affaire bi leerul leeru la yow leerul ñi ngay waxal ñi nga xam ni ñoo la tax di wax leeru leen ñi nga xam ni ñoo la tax di wax tamit puisque daa am ñu toog di la wax loo ak ñu toog di la déglu ña toog di la wax loo al ixtilaafu xujja leeru leen yow mi leen di waxal leeru la ñi lay déglu nga leen di waxal aussi leeru leen mu nekk zulumaatun baaduha fawqa baadin ida axraja yadahu lam yakad yaraaha wa man lam yajal illahu lahu nuuran fama lahu min nuur léegi pour xamal leen mën a fen ak ñeme yàlla ak waxaa bi li mu wax lépp ci ci darir ga doon jàng alquran ca armeel ya te imam ahmed ànd faak benn waayam doon ko ko tere ba koo ko waxteeg moom ba imam ahmed ni ko